Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. taala wa barakaatuhu baku mbokku jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ya, di leen ya, ya, ziara di jiital ci nuyoo beeg ziar bi di xalifatu Cheikhul Xaddim di ko ñaanal suñu borom jokku yaram may ko kàttan ba li mun ngir liggéeyal ko sëriñ Tuuba suñu borom defal ko nu ko bëggee ci barke borom bi di nuyuwaat ñëpp rek. di dellusiwaat tey di waxtaan ci menn mbir moo xam ne romboon na fi ci biir dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne à peu près mi ngi doon ci ay sept mois muy déguerpissement yi nga xam ne moo doon am ci dëkk bi di Touba ñu amaloon ko ci ndigalu sëriñ bi ci ñi doon wax ak ñi ko doon def muy mairie ànd ko commissaire bu police police bu jànnatu commissaire ak ña ca war a ànd ñëpp ñu dugg ci biir dëkk bi di def ay déguerpissement ci yenn yenn yenn yoon yi ak corniche bi ngir ne sëriñ bi moo ne lépp loo xam ne dafa nekk ci yoon wa ila mu nekk foo xam ne rafetut wala xar kanamu dëkk bi da cay ñaaw loolu ko dindi ko fa defaat ñu gis ne loolu bi mu ko defee matut euh, euh, sept mois am leneen lu ci xewaat loo xam ne euh, arnaque la nekk loo xam ne du jëfinu rafet du lu lu kenn xam muy biñ ko defee loolu ci ci ci sept mois yooyu ñu gis ne waa mairie ci boppam ñoo jógaat seen jëmm ànd ñoo police nag ndax lii ñoom dañ koo gis ànd ñoo police nga xam ne bërëb yi ñu romboon yëpp yàq ko yàq ci alal yu baree baree bare ay millions yu bari lan yàq ci ndigalu sëriñ bi ay millions yu baree baree baree bare te yaakaar naa sëriñ bi digalu leen yàq ay millions yu baree bari lan yàq biñ dellusiwaatee ci 6 mois yooyu noonu mat na 6 mois biñ dellusiwaatee dañoo rom ñëwaat ci place yooyu nga xam ne ñoom lan doon yàqal ñu ne borom place yi kenn ku nekk pour nga sampaat mbaam mi nga nekkoon sa bunt place wa ilaa kantin bi nga bi nga jëlale woon foofu wala bi ñu yàqoon foofu pour nga samp ko il faut nga fay 1000 francs ci mètre carré bu ne nga xam ne boo yoree 4 mètres 4000 francs ngay fay ñi yor 5 mètres fay 5000 francs nga xam ne ñi ngay reçu yooyu noonu danañ ko publier après ngeen gis ko nga xam ne reçu yi waa mairie ci boppam ñoom ñoo koy daggale nga xam ne 1000 francs lan lay fay ku mètre carré bu nekk te ci ay jamono ñoom ñoo fi ñu waxoon ne sëriñ bi ci boppam moo joxe ndigal ne lépp lu nekkul ci yoon wala mu nekk ci kaw yoon yi nañ ko fi dindi moo xam mu bagage moo xam mu mën di doon oto wala lu mu mën di doon yàq ci alal bu baree baree bare mairie googu nag àndoon ak police doon ko def ñoo dellusiwaat ñoo dellusiwaat ci biir dëkk bi fan jaaroon yàqoon fa alal ju bari ñu jaaraat fa di leen encaissé kenn ku nekk mètre bu nekk 1000 francs mètre carré bu nekk 1000 francs ngir def ko ci seen i gafaka pour pour pour ñoom ñu sampaat nga xam loolu arnaque la kenn xamul lu doon ndax bu fekkee ne sëñ bi dafa jox woon ndigal ne nañ fa jóge nga wëlbatikuwaat jaaraat fa di encaissé ay 1000 francs te leeraloo nit ñi waxu leen lu leer waxoo ne sëñ bi jox waat ndigal ne nañ samp waxoo ci seen ci seen ci seen i mbiri bopp seen arnaque li bopp ci lañ koy defee mu nekk mbir moo xam ne lu ñu naqari la lu ñuy ñaawlu la naqari nañu lool lu ñu lu ñu naqari la ñaawlu nañ ko ba ca kanam yàlla